بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما عدمه بأحمد ربي فلا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون عما نفعل يا فاتح الأبواب يا مسبب بكل أسباب ويا مقلب يا فاتح الأبواب يا مسبب بكل أسباب ويا مقلب وعام أعدع محتاذا على جلل دعاه في سفر مولى أولي الكرم وعام أهدئ محتاذا san ala jalalin daa fi shafaril mawla ulilka mawdu neena waxta mawla izma la xëy yërwani zaxarifi ذا دود وذا شمام وعام أودي أموتا سن على جلال دعاء في شفر المولى أولي لك مودن حوايض عند بعض في تأبي حان رحيل لو في يوم العالم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 Ah, di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy Cheikh Ahmed Tijani di xalif général des Tijanes di ci tekk rakkam yu tedd di ci jiital Serigne Abdoul Aziz Sy al ibn al amin ah di jiital ci nuyoo bi mbay Mbaye euh, Mansour ni ni suñu bay Serigne Maodo si ak suñu pap Serigne Mbaye Abdou ak mboolem famille suñu mam Seydi Hadj Malick yëpp ah ku fa tabarakallahu dégg way yooyu xam ni am na lu xew ah li xew nag mooy bis bu rëy boo xam ni Serigne Pam Malick Diop di dom ci soxna Umu Këlsoom bay bu soxna Umul Xayri bu Serigne Babacar Sy bu Seydil haji malik mo amal ben bis 4 avril fi ci Tivaouane ñu ci rendre hommage Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ah fa tabarakallahu ñep xam Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour tabarakallahu bis bobu nek le 4 avril insha allah programme bi ni lay teud bu ñu xeye insha allah 10 h fépp fu daara nek ci Tivaouane ñu ngi lay wo ñu ñep ñu génn tok ci hadra bi ñu wacce kamil ñaanal Cheikh Seydi mohammed Mansour ñaanal aduna bi ñaanal hadra bi ñaanal rew mi ah insha allah bu 16h joté fu talibé nek ñu ngi lay ñaan nga génn tok ci tante bi insha allah ñu tambalé programme bi ah El Hadji rawan Fall bi nga xamni mo daan woyal Cheikh Seydi mohammed Mansour dana tew ci bisba Abdoul Aziz Mbaye dana teew ca bés ba alxaaji Dudu kenn Mbaye dana teew ca bés ba ak mbooleem tàggkatu sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp nañ fa teew kon ñu ngi leen ci woo di ci woo addina bi di ci woo képp ki wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu nekk 4 avril di bisu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ñu ngi ciy woo ñëpp subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum assalaamu aleykum mbokk Sénégal bu ngeen di gis gisee Cheikh Ahmed Tidiane mii taxaw di turandoo xalif général Tidiane di doomu Alaaji Mbay Dondo wax kon mbir mi tirise newu ci ku ñuy wax Pape Malick di Pape Malick Diop di doomu Kalambay kanay Kalambay doomu umu xayri kanay umu xayri moom la Serigne Mansour noon yaa man xadaa raa idala khairati wan ni'ami faqif ila ala babi ummil khairi taghtanimi koku moy setam moy mamam koko jur kala mbay borom liggey bu amul frontière ci kër diine yi musawatere këru diine musa wote rek kala mbay bu ko yegge na ci def la mu man ba defal ta sax borom lo xamne ka ko lola koku nak domam mo taxaw ni da wutal journée euh, cheikh seydou mamadou mansour mamam waaw setu borom waañ wi muy umu xayri mi jur kalambay mu jur Pape Malick di ñaa ko borom waañ wi sëtam boobu bu taxawalee sëtub maamam borom daara ji mani wat ca watit li arab dani wa kullu shay'in ya'udu ila aslihi mbaax googu nga xam ni moom la Serigne Mansour bokk gi mu bokk ak Serigne Babacar Sy mi nga xam ne tey moo waral bis bii di di siyaar général mu ñu ñu commencé ko daanaka doxal daayira 1937 Cheikh Seydi Aboubacar 1925 la toog ci xilaafatu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ba mu dee ba 1937 ci la ñu carré nag siyaara yi ci daayiratul kiram léegi lañ fi woo sax président daayiratul kiram muy Alhaji Malick Ndoye ca Ndakaaru kon lu mooy bis bu rëy boobu moo dend bis bii ñuy woote waaye nag woote bi sëriñ bi wax na ko léegi muy Cheikh Ahmed muy le 4 avril kan mooy Cheikh Seydi Mamadou Mansour mooy nga xam رضي الله تعالى عنه موم لا مام الاجي بايام الاجي منصور نون ايا احمد المنصور نجل الخليفه فلا سلت منصورا لدى كل وجهتي jefe ya pap fala silta mansuron sóoroon ci ga duggu ñu duggu ci ñi nara wuy ci duggu ci ndax nitu yalla mo waxon ci nitu yalla da tek loxo bi ci bop bi ni ko fala silta mansuron yalla bo deñ di ko ñi dimbali la da kulli wijhati ci bepp anam kon nak pap li ga duggu di nga ci am dimbalal yalla ndax am ko ci eh, ndigal sa mam Serigne abdul assis Al Amin, mi nga xamne moy ministre keur Seydi Hadji malik Serigne abdullah ni moy ministre keur Seydi Hadji malik du daj lu dajje ko ci lu mu daj dina sax kon ku bëgg daju ñewal deg dégg ndigal sax alaaji alaaji ah, sëñ Abdou Aziz Al Amin bu la daajee du too daajee ko moom laa ko tudde te loola amit fa tabaarakallaahu yal na yàlla guddal fanam am na ci ndigal xalifab Cheikh Seydi Mamadou Mansour si muy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mais am na ci ndigalal rakki Serigne Cheikh Ahmed Tidiane di xalifab sëñ Mansour muy Serigne al muy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Jamil tabaarakallaahu encouragé nu ko ci kon Pape loolu ñoom ñoo taxaw ni ñoo ko waroon a def nga jëlal leen ko kon nangu nu ko cent pour cent dañ la ci jàppale sa pa cent pour man Serigne Mansour Serigne Mansour ñëpp la woon ko daa dem di maye billet màkk ba nga fekk ab catholique ngay may ba ni ges yem ci moom ni ko ñool ma may la biee kooko ni catholique la nga yëkëti million jox ko ko million booba ni ko kon nag nga dem siar ji fa nga fa la neex nga wëlbati ko loolu loola jàppale ba nga mujj tuub ci moom nekk tay kilifa nekk ci réew mi ma ne kooko yow pa boo ko taxawalee ah yow day lañ al fadl lil mutaqaddim yow da jitu gënu ci ci ngëneel li xanaa jinax ju jëkk jëk dal daal tuddu jinax ku kaneen koy defati nag ndax ñu bari ñu ngi koy wax nag naan dañuy taxawal sëñ Mansour Surne waaye jitu nga leen waaye yaa leen war a jiitu ndax kala la jiru umu xayre la jur umu xayre ko jur Serigne Babacar ko jur Seyda Hadji Malick ko jur kon Pape jërëjëf Pape jërëjëf Serigne li ko Sese Ahmed Tidiane waxee rek looloo am bu kenn manqué na ñëpp ñëw kala mbay ma moom eh, yal na yàlla guddal fanam mobilise na ses daayira yëpp alaaji Pap Fayit mobilisé na muntadi bii na yëpp Serigne Abdou ma moom waxaale wu ma ko fa tabaarakallah ndax bañ ne tëb leen fekk na soccet jatu tabaarakallahu wasalaatu wasalaam ala rasulillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki Sénégal comme ni ngeen ko déggee suñu baay Maodo wax ko Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye du wax ko ci bis boobu nga xam ni ñoo ngi koy amal le 4 avril ci ndigalu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum ak sëñ Abdou Aziz si al Amin mi yor kàddu njaboot bi ñoo ngi ciy woo ñëpp di leen wax ni incha allahu rabbi bu 16h jotee na leen fekk si buntu jàkka ji foofu lañ koy amalee di koy présider mooy sëñ Moustapha Sy Abdou ak sëñ Mame Malick Sy bu sëñ Mansour Sy ñoo ngi ciy woo mbokki Sénégal yëpp ñoo ngi woo daayira yi ñoo ngi ciy woo fédération yi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam jërëjëf ida nahnu jinaa nahwa min taallumin wajadnaahu sahlan layinan lam yushaddidi kon waman lii bi ustaadin yurabbi muridahu bila qalwatin bal himmatin misla ahmadi kon waman lii bi iqraaj alxaqaayiqi naasixan waman lii بتدراس الكتاب ومسند ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معانع بديع بمسعد ومن لي بوش بل جنيد ولا شعر ومن لي بآداب ودرب المؤدد ومن لي بنجم fi nujumin wa musilin naan ko Seydil Haaji Malik yow yaa ma sol usolan naan ko Seydil Haaji Malik yow yaa ma sol arodan naan ko njool faama yaa ma sol siiratal badri miqwade wa man li tasarrufu mawlaana al imaami kama yura بمستويات هذه رمز قالية فللروح نور ما وللنفس عزة وللحلب حب في سنن من جمالي وللجسم من كل العظات طيبات ويجعل مهن الرزق دون حلاله بذاك حما فرضا وصانا موطنا وأبعد كل منهما عند الآله كن فصلى عليهم ربنا إن ربنا حد احتار فيك اليوم مهجه آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى